man Souleymane laa tudd. waaw Père Souleymane ñu gis ki nga xamante ne tey mooy Balla Gaye ñëw si Balla Gaye Bombardier mais ñu fekk leen fi nga xamante ne mooy géejewaay ngeen xam lamb yàgg ci lamb lool tey combat boobu lan nga ma ci mën a wax. mere Balla Gaye rek mere ko. moom mere ko rek lañ def ñun waaw mere ko kese lañ def parce que kontagul Balla Gaye indiwul condition ci lamb ji kontagul mbër nag contact la du dem France te nekk fooy déedéet. mbër contact la waaw. Balla Gaye contactul ci combat bi de. mais bu summeekoo da da dana dégg Bombardier. xam nañ avant muy summeeku affaire yi du muscule boo contactee da ngay am doole ku la bu la xool bu contactoon dañ koy xam parce que dañ koy seetaani buy contact dañ koy seetaani mais contagul. Balla Gaye war a liggéey ci ci làmb yi des ci kanam diggante Boy Niang ngir bëri ëmb di dem ci école bi. saal bi bu fa jógee di dem ci école bi takk ngemb. il faut mu dellu takk ngemb. Balla Gaye ko dàq bëre kenn dàq ko bëre amul mbër mu ko dàq bëre amul mais nag mbër contact la boo bàyyee li la far rek mu doy waaw ñoom ci contact la ñu débuté ci lañ leen xam ci mbapat yi topp ko fu ne. Balla Gaye seen galaa bi bu taxawee bekk suukar yi ci kaw la commencé ba ci suuf da ngay gis bekk suukar ab domino yi ci kaw ba ci suuf d'accord nag fi mu nekk nii mag la mais nay contact nay contact parce que mën na bëre nay contact. Cheikh Fall. Cheikh bu ñaaw bu daw Cheikh Fall bu booy ñaa <laughs> Cheikh Fall bu Balla geey fekk la fi nga xamante ne mooy géejawaay ñu fas yéene waxtaan ak yéen li nga xamante ne moo jëm ci combat Balla Gaye bi ak Bombardier li nga xamante mooy bëri nañ ko le premier janvier yéen en tant que doomu Géejawaay en tant que yi nga xamante ne xam ngeen làmb yàgg ngeen nekk ak Balla Gaye keroog lan ngeen gis. ji moom nañ ko maanaam mooy Balla Gaye def na lu mu waroon a def lépp yàlla suñu borom nag mooy may ndam te jour boobu moom may ndam Balla Gaye bala waaye Balla ku ko xam-xam ne du jël xaalisam di ko fay dem France ñaari yoon préparer combat ba yabul yabul géej Géejawaay de yabul sax ñoom Aziz ñi nga xam ne dañuy sonn si moom xanaa bisu ndam. bisu ndam la bisu defet nag bisu defet la kenn mënul woon a ñëw ba Balla Gaye am ndam jur boobu ñu ngi koy ñaanal des na yeneen combat yi nekk si kanamam te Balla Gaye de du gan si làmb xam na làmb bu baax li ko doon may ndam xam na ko li ngay xañ ndam xam na ko na gën a góorgóorlu xam géej géejawa yëpp ñoo ngi si ginnaawam di ko ñaanal combat yi ko dese yëpp yàlla na ko suñu borom may ndam lu gën si moom. keroog la ngeen gis li nga xamante ne mooy Balla Gaye ci combat bi ba ba ñu sumee ko par rapport ak moom ki nga xamante ne mooy Bombardier lan ngeen gis seen mbër lii ma parce que bañ bañ dalante ñoom ñaar kun yéen ñi nga xamante lamb am ngeen loolu gis ci li nga xamante wala Balla Gaye indiwul tey lii non Balla Gaye moo ñëw rek entraîné na bëri na Balla Gaye moo ko def moom moo dem soogu Bombardier wala Bombardier est-ce que song na Balla Gaye moo ko song moo xeex ak moom waaw Balla moo def li lamb laaj yëpp moo ko def jour boobu Bombardier nit ku ñëwee Bombardier ak ni mu toll bu ñëwee ne bëriwu ma foo koy daane gis nga gars yi nañ analyser quoi Bombardier ni mu toll Balla Gaye de dugg jàppanteeg moom bëreeg moom bëreeg moom xam nga bu ñu nee Bombardier bu ñu doon bu ñu nee Balla damay jaaxal ak Balla Gaye ni mu bëree suur boobu ak Bombardier ak Bombardier ni mu toll Bombardier moo sut Balla Gaye xam nga loolu moo ko sut moo ko ëpp kon daal ñun daal li ñu bëgg mooy waa Géejawaay nañ gën a góorgóorlu gën a nekkaa si ginnaaw Balla Gaye 2 li ñu defal si làmb amul benn mbër bu ko defal benn naa ñun si làmb. mais Balla Gaye keroog li mu bëree combat mi yi di ñëw ci kanam ku ci mel ne Boy Niang Eumeu Sène Gris Bordeaux loolu dina est-ce que loolu dina ko arrangé ak poids bi mu yor nii ak keroog li mu bëri. waaw déggoo li ma la wax nee naa la Balla xam na li koy may ndam xam na li koy xañ ndam dina dem liggéeyaat gën a góorgóorlu xoolaat yoonu làmbam bu baax a baax a baax ñun daal loolu lañ mën a wax si Balla Gaye 2 di ko ñaanal yàlla nañu lu ne bëggalee nañu nu ne man du ma xarab du ma mus a xarab Balla Gaye dama koy ñaanal li def si combat am yëpp leer naañ naañ loolu lañ koy ñaanal. jërëjëf jërëjëf. waaw combat bi métti na lool wax dëgg yàlla métti na métti nañu ndax ñun bëgguñu ku dul Balla Gaye bëgguñu ku dul géejawaay Balla bu bëree géejawaay lay tudd bu daana ñun lay tudd mais combat bi ñun luñ ci jàngat suñu jàngat bu gàtt Balla entraîné na def na li mu war a def def na lépp suñu borom nag moom moom ndam ku ko neex la koy jox ñëw na Bombardier gën koo pare ci làmb ji bi nga ko gënee pare ci làmb ji Bombardier sunu borom ànd ak moom écharpe bi yëpp Balla Gaye lañ àndal. lan nga gis la manqué. non Balla Gaye man pour man ci lu mu manqué mooy physique contact bu xaw a bëri tuuti la Balla Gaye manqué ak gën a physique gën a wàññi poids bi tuuti ndax Bombardier boo koy daan il faut ngay dugg di génn mën ko daan Bombardier comme Balla jàpp na ko ci ngemb mënu ko daan ñu taxaw ñoom ñaar lu mat cinq minutes bala jàpp fi mu daan jàpp gars yi di leen daan mu jàpp ko fa mënu koo daan mais nag làmb noonu la day dem defaruwaat àndaat ak ay mbokkam ñu mu war a ñu war a àndal rek toogaat ci géttam sunu borom bu bëraatee beneen yoon yàlla may ko ndam. làmb yi ne si kanam ba Balla mu bëre keroog combat yi ne si kanam moom euh, est ce que loolu seen dal na seen xel. no Balla du bëre waat lii ndax Balla ko xam-xam ne champion la lii du amaat Balla ñu ko dar ay champion ñoo ko dar. ay ay doomu aadama ñoo ko dal ñoo xamante ne baala gay Gaye jaral ne leen ay cent millions cent cinquante millions kon Balla Gaye lii mu bëre nii xëy na cat àdduna bi yëpp ànd ak yow stade bi ñëpp ànd ak yow cata ko topp rek lii dal ci kawam mais. entraînement nag yi yoon ay ñoom ñaaxarañ buuse waa kër Aziz Ndiaye ñooñu ñooñu euh, est-ce que am na lu ñu mën a apporter Balla Gaye ci ci ci côté làmb. waaw mais xam nga buuse dafa bëgg Balla Gaye ñaaxarañ lu xaw moo ko mën mënuma wax ci moom mais buuse xam naa ko buuse dafa bëgg deretu waay mooy daw ci kawam dafa bëgg Balla Gaye xëy na nag làmb yu bëri Balla mi ngi ko doon sinab ñu koy génnee man su ma sañoon duñ ko génnee sama gis-gis bu gàtt ndax Moustapha Gueye booy xoolee bi muy tojlee ci làmb bi ñuy génne ni ko yaayam doon ñaanalee foofu la Moustapha Gueye commencé toll ci làmb Balla Gaye léppam dañ ko génne ci làmb te loolu daf ko war a dindi sama gis-gis bu gàtt loolu daf koy yàqal lu bari bëri sinab yi àdduna moo changé léegi loo def ñu sinab ko génne ko sa préparation lépp ñu bokk ko génne na na na bañ loolu Balla gay buy watu ñu filmer ko lu muy def ñu filmer ko loolu moom bu ma sañoon man daf koy wàññi. bañ daanoo Ndiakhate ci ginnaaw Balla Gaye daanu foofu noonu yéen yéen moment boobu lan ngeen yëg ci. waaw ah, moment boobu li ñu yëg mooy tristesse la yëg rek lu metti moo ñu dal mais tamit arbitre bi daf ko beneen arbitre bi daf ko signalé ci loxoom moo tax arbitre bi nanguwul nangu nanguwul nanguwul kii bi quoi sit bi ndax beneen arbitre bi ci wet gi boo doy xool moom moo yëkkati loxoom kee doo ko sifflé noonu la fa demee quoi mais bi mu daanoo noonu daf ñu metti daf ñu metti ndax combat bi daf ñu metti bu ñu la waxee dëgg rek combat bi metti nañu mosuñu bëree combat bu ñu mettee nii. waaw. lan koy conseil li ma koy conseil daal mooy mu ànd ak ay mbokkam ànd ak ñamu daan àndal. waaw ànd ak daan àndal gën a entraîner gën a yokk physique bi bu amee combat deux mois avant na ñëw fii topp mbeex mi topp din yi contact bu bëri jël dix booyam contact ak ñoom ñoo xamante ni am na ñoom am na ci ñoom confiance ndax làmb dafa fiir man loolu rek laa koy conseillé ah waaw. ñu mbër Bombardier keroog ngeen yi nga te ne tey waa Guédiawaye ngeen jël si lamb yooyu defet te la ngeen dundee defet bi ak lan ngeen wax tamit seen mbër Balla Gaye waaw loolu moom metti nañu torop ndax bu sañoon moom day am comme day day am euh, nu mu koy wax victoire chaque jour waaye keroog moom xëy na loolu la ko yàlla dogalee waaye nag na nit ñi nañ nañ xam ne Balla daanañu bégal Balla daanañu yóbbu fu ne kon nag tey lii bu amee nañ sant yàlla te sénégalais yi lan lañ mën mooy ñoom tey rek lañ xam waaye duñu xam démb man moom Balla tey laa ko gën a bëgg ni mu meloon ci man noonu la mel ci man tey yaa ngi dégg waaw waaw loolu daal waaye nag maa ngi koy ñaanal nag mu am boo amaatee beneen combat yaa ko yàlla may ndam waaw. ba ba ba Balla Gaye keroog summee ko te keroog ba baa ngeen ko gisee lan ngeen sentir lan ngeen yëg. waaw nooy na torop ngeen gis moom gisuñu Balla daal waaw daan nañ gis Balla waaye démb keroog moom ba mu summee moom gisuñu ko waaw gisuñu ko moom nooy na nepp daal danoo bëgg nag Balla muy dëgër këkk waaw. ok merci beaucoup. Amar Amar Ndiaye. Ndiaye ngeen dëkk Géejawaay ah seen mbër Balla Gaye bëre ki nga xamante ne mooy Bombardier keroog ñu gis keroog lamb ji ni mu demee keroog combat boobu keroog lan ngeen ci mën a wax. non man Balla Balla sama mbër la mais keroog Bombardier laa faral. yàgg man ak moom depuis 96. fi nga nekk fi fi fi dëgg Géejawaay la. mais dëgg la mais Bombardier dana am coloré dana am coloré dana am coloré moo tax depuis 96 ku moom laay faral ku ñu bëree ma moom laay faral mais Balla moom sama mbër la mais rek keroog moom xam na ne wax dëgg yàlla dañ ko man te maa ngi koy conseillé tamit moom dara Balla di ko wax ne bu ñuy bëree bu muy bu muy tëkku mbër tëkku baaxul tëkku da mën nga am sax mais yàlla mën na la wor parce que tëkku moo baaxul te moom dafay tëkkoo nit li asa ah, naa du ma daan xam nga ne loolu tegoo ko fenn nit ki boo ko mën ëppul ñaari am na xam ne nii Bombardier boo ko bëggee daan da koy nax da koy nax mais kenn du bëreeg moom ko raccord Tapha Tine lu moom da koy yem arrière noonu lay bëreeg moom mais fekkee ne dafa bëgg a ñëw corps à corps bëreeg moom loolu kenn du ba bàjjee. ma Balla gi sumee ko keroog biir bi day amul amul amul amul ko ci biir encore contact defu ko. premier seen seen seen bu njëkk fa la contact bu njëkk fa la loolu am na si moom waaw. Ah dama koy conseillé moom Balla gi. man mu gën a wutaale encadrement yi baax parce que ñii ñi ko topp nii. dëgg la am nañ xaalis mais xamuñu làmb te làmb dafa am ñu ko xam ñoo fekkoon ne tey jii fekkoon na fi papam wala mu fekk fi kii bin songay ba àttee ba ñëwaat danañ ko conseillé ne ko bul bëreeti nii ku amal kii mais ñii xamuñu si làmb fa man am na conseil ñu ko kii danañ ko ku conseillé ko lii nga bëree du yoon bala bu fekkoon ko bàyyi si maninam kon ken ko daan ok merci beaucoup incha allah jaajëf. Mamadou Thiam laa tudd. gis nga comme waaw. di la wax ne man depuis arène Sénégal. laa commencé seetaan làmba ba stade Assane Diouf di ko seetaan ba fi ma toll nii dama ni mbër day naqadee daan dama ni Lac de Guiers mooy mbër mooy champion bi mooy mbër mi gars yi nag ña ngi koy contre waaye bu ñu demee ba ca kanam daañu xam ni mooy mbër. mais keroog Balla Gaye li li Balla bëree foofu loolu. waaw ah, Balla Gaye bëree bëri na mais maanaam ni ma gisee bëree bi Balla Gaye ni mu bëree li ñëpp wax maanaam mooy dëgg parce que ñu ne Balla Gaye dafa manqué contact. te keroog ci combat bi wane na ko wane na ni sunu mbër la parce que ñun waa Géejawaay mais wane nañ ni keroog ci biir combat bi dafa manqué compétition. waaw te ba mu sumee ko noonu ñu gisee par rapport Balla Gaye bi mu sumee ko par rapport bi mu sumee ko contre Modou Lo ak bi mu sumee ko contre Bombardier du benn. parce que contre Modou Lo dafa ni biir bi mi ngi wàcc kon donc contact bi ñuy wax des parce que demoon nekk foofu di yenu ay poids rek fii saabal baa fii la mbër di woowee koŋ dugg ci suuf si waaw dugg ci saabal bi contact ba wow koŋ Balla Gaye contact la ko ñëpp ma sa xamee nga dellu si lu mu nekkoon dafaat ko. cent pour cent géejewaay bi mbër yi nga xam ne ñoo ànd toujours di jàppal si yenn contact yi mais bi combat bi ñoom gis ñu leen si ginnaaw Balla Gaye lan. ah waaw loolu dama jaaxal na ma ne wax dëgg yàlla loolu moom Balla Gaye nga koy laaj ndaxte xëy na moo xëy na moom ñoom ñoo xam ni ñu ko seq wala dara mais si open press am gis naa ci Lac de Guiers mu ànd moom waaw mais nag ci làmb ji dañoo tere ni képp koo bokkul écrit buy bëri amoo droit dem ci suugam xam naa loolu tax waa géej parce que bokkuñu écrit kee école de Balla Gaye la ne kii écrit waalo guy gi nekk école euh, Mor Fadam donc bu kenn daan bëri si ñoom mën nañ ñëw sa open press mën nañ ñëw sa entraînement mais buñ demee ci làmb ji duñ fo doo doo mën a dem ci moom quoi waaw loolu rek la waaw ñu ngi nuyu ñëpp nag.